لا لا لا لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى عبد الله ورسوله نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi santati yàlla di ko tuubal suñuy bakkaar di sàkku ci moom mu teg ñu ci yoonu njub te saxal ñu ci ñu ngi teewlu bu baax xewalam yu yaatu yi nga xam ni mu ngi ko teg sunu kanam yi nga xam ni mënaluñ ci suñu bopp dara te waxtu wu jot mu ñu mu koy sotti ci sunu kaw ñu ngi seere ni yonent bi sallallahu alayhi ndawam la loo xam ne moo ko yónni ci ñun te li mu ko yónni mat na sëkk yal na suñ boroom mottali salawaat yi wa salaam yi nga xam ne moom la def te jëmale ko ci moom ñu ngi ñaanal képp koo xam ne foofu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tegoon tànkam teg nga fa sa tànk moo xam mu ñu jiitu moo xam ñu ñu jamonoon teel moo xam ñu ñëw ca kanam ginnaaw loolu mbokk jullit yi xam ngeen ni suñ boroom ci xam gi mu xam doomu aadama moo ñu bind moo ñu gën a xam suñu bopp bokk na ci yim farataal ci ñun ajuma ajuma nag di waxtu woo xam ni dafay aw yoon wuy daje waxtu wu jot nit ñi di ci daje ñi nga xam ni ñoom la suñu borom jox kaddu ñu ci fàttali nit ñi ñu bañ ko fàtte ñu ci fàttali nit ñi di leen di jëmale ci kanam di leen gindi seen digganteeg seen borom waaye di leen moytuloo yoon yi nga xam ne buñ ci jaaree muy ay ñal kon moo tax suñu ciy waxtaane yi xew ci jamono te ab jullit war koo bàyyi xel muy lu yàlla te jaadu loolu rek moo tax bokk na ci yi nga xam ni moo tax mu jóg suñ boroom nag dafa am nu mu doxale addunaam ñëpp it doomu aadama yëpp maase wuñ ci man koo xam man koo xàmmee xelum doomu aadama yi tuuti na ci xam programme suñu borom waaye li ñu bëggoon a waxtaane tey mooy li xew lenn ci li xew ci dëkk bi ci ay ndaw yoo xam ni dañuy bàyyi seenum réew dugg ci ay gaal ngir wuti lu ñu dunde walla wuti lu ñu gën lu gën a bari li ñu daan am loolu nag risque yi ci nekk bokk na ca mën a faatu kenn dootul xam ci loo nekk loolu dafay danger bu mag a mag a mag boo xam ne réew mi mu am ña fa nekk te am kàddu war nañ ci yëkkati seen kàddu euh, moom ndax wuti loo dunde wuti loo lekk ndax jar na teg sa bakkan loolu ab laaj la ndax nit ki wuti lu mu dunde ak wuti lu mu lekk jar na mu teg bakkanam tey la ndax am na lu mën a layal mbooloo mu bari mu toll nii di ay ndaw dugg ci ay gaal jëm cim réew moo xam ne dañoo jàpp ni mu ëppum koom seenum réew waaye bu ñu bu ñu dee téeméer boo moytuwul ñu ci bari ci biir ndox mi la ñuy des ndax loolu am na lu ko mën a layal ci diine ci diine lislaam diin ak lay wax ay laaj la yu yu samp yoo xam ni ku nekk war nga koo mën a laaj sa bopp waaye tontu bi it képp kuy boroom xam-xam yàlla dénk la xam-xam bu leer war nga cee mën a dimbali nit ñi bakkanu doomu aadama ci leen rek la dagane jaay muy yoonu yàlla rek ci lislaam bakkanu doomu aadama ci yoonu yàlla rek la dagane jaay gis nga li nga xam ne mooy dugal nit ci lislaam muy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu bakkanu doomu aadama taxawee baat yooyu taxaw lislaam may na la nga bañ ko wax kon nga gis ni te loolu lu garaaw a garaaw la loolu mooy dugal nit ci lislaam lenn rek moo tax lislaam may doom adama mi bu jaay bakkanam mooy taxawal kalimatullah kon lu nit di wuti ci àdduna jërul sa bakkan loolu ci lislaam dafa war a leer ñépp xam li baax baax na ñépp ko xam lii safaan ab safaan la ñëpp xam kon loolu lu mat a leer la si tàmbali bu ko defee nag kon responsabilité bi day taxaw ndax lii am moom mu ngi am am na ndax ay ju ay téeméeri téeméer faatu nañ ci ci li ñu xam waaye mu ngi continuer di am te buñ ci jëwli di pexe yi mën naa am mu continuer ba mu lu yàgg yàgg ndax lii kat du tey lañ fi fii doog a dégg yaakaar naa fukki at ci ginnaaw ñu ngi leen dégg lu mel nii bu ñu demee nag ba mu egsi fii kon war nañ cee wax war nañ cee taxaw responsabilité boobu kon responsabilité la boo xam ni dama koy tàmbalee ci waajur yi ñi nga xam ne ñoo jur suñ borom dénk leen ndax ndénkaane fi muy njëkk mooy ki nga xam ni moom la suñ borom dénk ak njaboot ndax ñu bare ngi fi am kàttan am alal waaye suñu borom dénku leen ak njaboot kon bu la suñu borom dénkee yow responsabilité bi yëpp la ci ëpp yow yaa ko yam yaa ko war a gàtt kon waajur yi ci la responsabilité bi njëkkee ñaareelu responsabilité mooy képp koo xam ne dañ lay xool di la jox ab cër bu mu mën di doon ci réew mi ci diine wala ci leneen kon loolu kilifa diine ci la bokk imaam ci la bokk boroom xam-xam bi nga xam ni sax yooyu yëpp sax defu ko waaye terewul muy boroom xam-xamu diine bu sell ci la bokk boroom xel mu sell mu rafet mi sax ci la bokk ñoom ñëpp seen responsabilité taxaw na ngir ñuy wax ak ndaw ñu delloo si leen delloo si seen xel delloo si leen delloo si seen xel si li tax ñu jóg li tax ñu bind leen ak lan moo war a nekk seen taxawaayu fii ci kaw suuf dama yaakaar ni bu fekkee ni kenn ku nekk su mettee nga daw kon metti metti yu bare bari bu soppe kon ñi nga xam ni ñoom ñoo am responsabilité kenn ku nekk warugar la ci yow nga wax ak ña nga dendal ñi nga mën a waxal am soppi ci ñoom wax ak ñoom ba ñu dellu si ci xel xam ni adduna yi adduna yi kese ji jër ca tay la sama kan waaye nag suñu waxee loolu ba nag bëgg nañoo delloo siwaat xelu ndaw ñi waaye ñoom it dinañu samp ay laaj dinañu wax ni waaw sëriñ bi dëgg la sax li ngay wax de dëgg la waaye nun ay Sénégalais lañ fii lañu dëkk ay ndaw lañ fa yéene nañu daan suñu doole te bëgg nañu lu ñu am lu li mu li néew néew te mënuñu ko am kon lan lan mooy solution foofu nag dañuy del dañuy may ñun ñu dellu waat ci sabab yi nga xam ni sabab yu ñu xam la te mënees koo soppi ndax yi waral lu mel ni bari na lool waaye am na ci yoo xam ni moom ci loxol doomu aadama la jóge te doomu aadama mën na koo soppi yooyu it ci responsabilité bi ñu yor loolu la nekk ngir dimbali ndaw ñi ba yu mel nii bu ñuy wax ñoom mu gën a mën a dugg seen ndaw bi ci njëkk mooy ndaw ñi tey lu ci bari ci ñoom li ñuy wax personnalité maanaam xam li nga doon di ab jullit mu wér ci yow nga fas yéene koo dund doo xool li sàmba di dem li sàmba di def wala li ma dem ba di def loolu dëgër gi mu laaj ndaw ñu ci bari nekkul ci ñoom moo tax ñu baree bari bu ñu jaaxlee ci situation da ngay gis ku sell lool ci diggante dox tuuti rek nga fekk ci ak càggante koo xam ne day na waar li ko waral mooy personnalité bi préparation bi ñuy war a def ci nit ki ba mu xam ne li yàlla digle rek mooy li am njariñ li yàlla tere rek li yàlla tere lépp dara baaxu ci loolu waajtaay woowu ak dëgër gu dëgër gu loolu war a dëgër ci xoolu doomu aadama yi am na ci ndaw ñu baree bare ñoo xam ne loolu nekkul ci ñoom ndax loolu bu nekkee ci nit des na la jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ni mu ni mu meloon des na la jàngal kilifa yi fi nekkoon ak ñu meloon mu wër la ne kuñ fi tudd te di ko màggal fàttalikuwuñ ci moom ay tabax ak i étage fàttalikuwuñ ci moom ay oto yu rafet waaye jikko yu rafet lañuy fàttaliku ci moom ak nekkin wu mu nekkoon société bi di amal leen njëriñ waaye loolu nag dafa des ñu jàngal ko gone yi ba mu sax ci seeni xol ñaareel ba mooy nit dafay am référence dafay am koo xam ni moom la teg ci kanamam wan ko ni ñu wan ko ni ko kii nga nii nga war a mel ndaw yi léegi nag li ñu leen di wan ci sunu ci seen kanam doy na waat wuute na lool ak ni ab jurit war a mel kan mooy modèle ci réewum Sénégal bi ñu nekk tey kan mooy ki nga xam ni fu ñuy def jataay dañ koy xaar ba mu ñëw kan mooy ki nga xam ni bu ñu tegee fukki sées bu yëpp feesee bu ñëwee kenn jug bàyyi ko kan mooy ki nga xam ne bu ñuy mayee sëy ci ci ci ab famille bala ñu koo takk dees na ko woo ba mu jàpp bis ba wala mu mu yëg ko nga xam ne du ko yëgandoo ci mbedd bi kan la ci biir société mooy borom oto bu rafet bi borom kër gu rëy gi borom compte bancaire bu am solo bi waa ji nga xam ni boo ko nuyoo mën na laa jox ñaar fukki bi lii nag bu amee ci société te kenn ku nekk di kenn ku nekk nag bëggal nga sa bopp ñu jox la considération kenn bëggut a nekk ci famille mujj fa kenn bëggut a nekk ci famille ki gën a yaafus sax bu sañoon daa yaafus rek waaye bu sañoon ñu koy tudd bu ñu tuddee kenn tuddaale ni ñuy tudd nit ñi nag tegatuñ ko ci ay critères seetatuñ ci ñi gën a baax seeta nuñ ñi gën a sell seeta nuñ ñi gën a mën alxuraan seeta nuñ boroom jikko yu rafet yi li ñuy seet mooy boroom basin yu rafet yi am oto bu rafet yor kër bu rafet yor soxna yu rafet yu mel noonu daal mooy yi nga xam moom la ñuy natte nit léegi nag bu ndaw bu gonet jàngee ci loolu juddoo ci loolu jàngee ci environnement boobu bu demee ba am ñaar fukki at te gisagul lu koy wan ni mën naa am loolu boo moytul mën naa sàlli kon loolu it day nekk responsabilité société bi yépp waaye loolu bu fekkoon nii lu njëkk li amoon na muy ñu waajaloon ko waajal ko waaju diine gu wér ba mu xam li am solo xam li ñàkk solo boobaa moom yii mel nii du du ko jax waaye nag lii dafa am ba noppi boole ci nag société bi di da di tànn nit nii kër goo dem ñu fa ëpp ñañ fay jox kilifteef mooy ñoo ñooñu nga xam ni ñooy borom bu buy diis te mën a faj li ñuy wax gàcc ci réewum Sénégal loolu nag lu mat a bàyyi xel ñaareel ba ñu tegaat ñu ci beneen modèle boo xam ni ci télévision yi lañ ñu koy wane fi ñu lay won comme model ci télévision lu ci ëpp du ki mel ni war a mel gis koo xam ni du wax lu ñu xam maanaam ñaari baat yu àndandoo yu am sens yoo xam ni bu paree di nga ko dégg mën koo jariñoo du ko wax te moo ne dañ koy may oto di ko may kër nga xam ni moom coono bi ñuy sonn ci àdduna moom moom yu ci baree bari du ko sonn ngir jariñu te baati safaan dong lay wax am na fi ñoo xam ni li ñu am lépp ci ñàkk sa dong ci lañ ko am ndax kenn ku nekk ragal nga seen kaddu ak seen yu ñaaw te yaa ngi làq yoo xam ne bëggoo mu sulli ko bu soobee yàlla lu mu bëgg rek ñu defal loolu it nag bu dee am ci société dafay nekk yu doy yoo xam ni gone yu baree bari dinañ ci bëgg a roy te te ni ma leen ko waxee léegi préparation ak waajal bi ñu war a waajal gone yi ngir ñu xam seen diini xam seen bopp dafa des bu baax a baax ñetteel mooy li ñu fi amaku si néew ci réew mi seddoo bi jaaduwut de li ñu fi amaku si néew ci réew ni ñu koy séddalee jaaduwut loolu nag ñi ñu jox sunu kàddu jox leen sunu kàttan jox leen délégué leen sunu alal ñoo ñu nag la ñuy interpellé ndax xam ngeen ni li ñuy wax budget wu Sénégal mooy li ñuy séddale maanaam bu ñu wax dañuy wax ni réew mi nii lañ koy doxale alal ji lañ soxla ci at mi budget bii ñu toll lu toll ci mille milliards mooy junniy milliards moom la ñuy séddale cent cinquante six mille fonctionnaires maanaam téeméeri junni ak euh, juróom fukk ak nàngam ci sénégalais ñoom lañuy jox ci sunu alal lu toll ci junni milliard maanaam sunu sa sunu alal ni muy toll buñ ko séddalee juróomi xaaj benn ba ñoom lañ koy jox ni leen liggéeyal leen askan benn ba ñeent yi la séddale ci yeneen yi ci des yépp nag te moo ne lim boobu de boo ko jëlaatoon nga segg ko dëgg-dëgg junni milliards yooyu cent cinquante mille yooyu dix pour cent yi ñooy lekk pratiquement soixante dix pour cent wu xaalis boobu maanaam boo jëlee téeméeri junni ak juróom fukk yooyu nga xam ne ñoom la ñuy fay dërëm boo jël ci réew bi euh, maanaam juróomi dërëm yoo jël benn dërëm ba ñoom lañ koy jox boo ko jëlee nga xam ni loolu déjà problème la boo ko seetee benn maanaam ci ci junni boobu juróom ñetti fukki té eh, juróom ñetti téeméer ya téeméer boo jël fukk ya dong ñoom ñoo koy def nga xam ne ñi des ñëpp loola boo ko xaajee ñaar fukki xaaj benn ba walla ñaar bi ñu di séddal laajal sage-femme laajal infirmier yi laajal policier yi laajal jàngalekat yi la ñeen jox lu néew a li ñuy am nag ci réew mi bu fekkee ni séddawuñ ko séddalewu séddalewu jekk te jaaru loolu day nekk problème réew mu mel ni Sénégal quinze millions lañu ñu am cent cinquante mille personnes lañ ciy jox un cinquième ci li ñuy am muy première problème ñi ci des kon ñëpp dañuy taqaleel seen bopp ngir am loo ama ko si néew ñi ñëw ni ko foofu loolu it nag day nekk jafe te fii gis nañ fi ba tey gone yu baaree bari yu dajaloo am seeni fukki junni seeni ñaar fukki junni dem ut seeni palaas teg ko fenn ñu jekki-jekki bu am daraan ñëw ni ko foofu te teguñu la fenn xamoo ci xamoo looy def lii nag damay wax ba tey ni leen li ñuy wax yaakaar bu dañee bu dañee ci doomu aadama lu ne la mën a def motax borom boroom xam-xamu tasawuf bi wax ni dundug julit bi mo ngi wara nek ci ñaar yi al khawf war raja mu yaakar ak ragal waye waru ko génn nit ki nak bu démé ba yaakar amatul ci dundum lu ne la mën def ndax nekatu kon yu mata a bàyyi xel li ñuy wax justice sociale muy al adala al ijtimaia moy li fi amatu si néew muy néew muy bare ñu seddo ko ba kenn ku ne yek ci sa bop loolu it jafe-jafe la boo xam ni ci loxo doomu aadama yi nit mënees na koo sopp sabab bi mu wax damaa wax ay sabab yoo xam ni benn bu ci nekk buñ ko seetee ma nañ ko lijjati sabab bu njëkk bi mooy alal ji fi nekk ci réew mi dañ ko séddalewul séddoo bu jaadu ndax benn waaye bu dem sëñ sañ a dëkk benn euh, contrat boo xam ne mille milliards la junni milliards benn nit fas yéene koo lekk loolu doo xam lu mu ko lu ko nit di doy maanaam benn milliard rek bu ko nit yore doo xam nu mu koy lekk waxantuma laa nag benn waaye bu foqale ba bëgg a signé benn contrat boo xam ne mille a ci nekk loolu kenn xamul lu mu doon kon te loolu mënees na ba mooy gone yi ñu waajal leen ba ñu mën a muñ xam ne lii mooy li tax ñu dund lii moo tax ñu nekk ay jurit lii rek lañ soxla ci ñoom du alal ju bari du nangam ak nangam yooyu noonu loolu it waa yi mën nañ koo def te war nañ koo def kon ñu mën a soxla ñetteel bi mooy. ñu kenn ku nekk ñu wan leen model yi ñu war leen yu ñu leen war a wan nit ku baax nii la war a mel te samp ay nit yoo xam ne ñu ngi fi te mel noonu ñu leen di wane te di leen teral te yàlla rek tax loolu it lu doomu aadama yi mën a def kon sabab yi ñetti sabab yi ma tudd benn bu ci nekk manees na koo soppi ngir mu soppi mbir waaye nag li lépp ay sabab la rek yu fi am waaye li ñu war a wax ñun muy suñu responsabilité mooy ndax uti loolu lekk jar na ray ray sa bakkan loolu mom question la bo xamni kenn ku and ak xel mu rafet yaakaar na ni euh do ko do do ci tontu tontu bu wuti ak ñepp di tontu rew mi guerre amu fi jamm ngi fi lu way ñak ñak deug la sax ñak amna fi lool foko tak rek wees na waaye lu way neew doole neew doole dimbalante bi mu ngi am ci rew mi ba tey sa waay kaay sukk ñu añ loolu mu ngi am ci réew mi ba léegi añ ba mu des nga xalaat sa mbokk mi nga dendal nga jël ko jox ko joxoo koy xaj joxoo koy muus mu ngi am ci réew mi ba tey yooyu far façon dimbalante la woo xam ne boo demee ci yenn réew yi amatu fa jeex na takk am na ci nit ñoo xam ni réew yi ñu nekk maanaam ci ay poubelle lañuy dem di jële di lekk ndax nit ki li muy yóbbu foofa amul xalaatu koo jox doomaat moroomum doomu aadama ni moom te dara rësiku ca kon façon dimbalantee ngi am ci réew mi jàmm a ngi fi am mag a ngi nangu yiir makkam rakkam ba léegi nit a ngi nangu am alalam salaire ub rek ñëw yor nangoo àngu kërug lépp goo xam ne ay rakkam ak i mag nga nga ñoo ne maanaam liñ koy fay bu ñu ko fayee bu weer wi dee da koy séddale waa kër gi jox ko dépense fayee koy facture mu jeex tàkk mu tàmbali waata liggéey loolu mu ngi am ci réew mi ba kon nag ndegam yooyu mu ngi fi am na nit ñi nag gën a góorgóorlu nag te bàyyi xel seen bopp xam ne ay jullit lañu leneen lu leen wax lu dul ay nekk ay jullit te fas yéene mel melokaanu jullit ñu ngi ci beneen yoon woo xam ne bokkut yoon ñu leen di woo kon yàlla yàlla defal tawfeex te si waat seeni xel ñi nga xam ne ñoo ci faatu suñu borom leen yërmande suñu borom nag lu yàqu waaye ñun nañu fàttali kenn ku nekk na nga góorgóorlu bu baax a baax te fàttali ña nga dendal te ñu xam ni adduna rek rek rek rek rek jër te joxe sa bakkan aqulu qawli hada wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim